asalaamaaleykum madame Fama Aydara responsable femme zone ouest. waaw dañoo woote woon réunion ñun jigéen ñi pour gën a consolider unité bi mën a waxtaan pour faire redémarrer euh, les activités du parti loolu moo taxoon ñu daje tey gën a dëgëral sunu joxante loxo donc ci ndaje boobu femme yépp ñëw nañu. femmes yi ñuy wax famille Thierno femme Augustin famille Demba Diouf femme yëpp femme leader yëpp a daje y a beaucoup de femmes leaders yoo xam ni ña nga fa woon donc waxtaan nañu. waaw ñu ngi ci dynamique unitaire boobu parce que femmes yi nag booy set ñoom mosuñu am ay problème ñu am problème problème yi fi am rek mooy responsable yu góor yi kenn ku ci nekk da nga am jigéen boo boot waaw ñun tam ñu fàtti sunu rôle rôle bi moo doon lan mooy lii nu def tey woote pour joxante loxo pour mën a liggéey pour mën a jàppale parti bi jàppale président makisal Sall. dañoo bëgg ñu gën a àndandoo gën a joxante loxo parce que nii ñuy demee nag comme en ordre dispersé arrangé wu leen arrangé wul parti bi arrangé wul jigéen ñi ñu bëgg nag ñu joxante loxo muy lu dëggu ci ñoom muy lu dëggu ci ñoom pour que échéance yi ñu jëm parce que il faudra une majorité confortable à l'Assemblée pour le président Macky Sall te yaakaar naa ne loolu ñoom war nañ ko xam war nañ ci bàyyi xel te pour ñu am boobu majorité il faut dañuy joxante loxo pour mën a liggéey fii Thiès Thiès bi nga xam ne nag dëkk la boo xam ne yombul noonu ci politique waaw mais bu ñu joxantee loxo amul dara lu jafe lu nit mënta am. waaw foofu aussi dañuy lancer un cri dañuy yuuxu président Macky Sall. parce que ku nekk xam na ni jigéen ñi depuis 2009 ba mu jógee ba tey ñi ngi ci ginnaaw tey seeni rangooñ daanu na ci seeni dënn parce que dañu gis ni kenn fulaalu leen kenn faydaalu leen amuñu benn outil de travail boo xam ne yor nañ ko ci seeni loxo pour li ñu yéene président Macky Sall ci réew mi ñu mën ko doxal kon ñu koy ñaan jigéen ñëpp bu département bi ak bu commune bi ñu koy ñaan mu recevoir leen ñi ko gëj a gis sax gis ko seen xol naataat yuuxu nañ ko fu nekk dinañu def nag euh, demande d'audience jaarale ko ci Augustin Tine muy coordonnateur départemental jox dem euh, euh, jox al Thierno Alassane Sall benn jox ab Mbow benn moom aussi ñu yónnee ko benn mu xam ni jigéen ñi daal daje nañu ñaxtu nañu jooy nañu ci ñàkk toogaay boobu nga xam ne ñàkk na ko toog ak ñoom ak ñàkk responsabilité boobu nga xam ne dëgg-dëgg joxu ko jigéen ñi loolu jigéen ñi jooy nañ ko te ñi ngi ko ci xaar nag dañu lancer un cri du cœur lu nekk ci suñu xol yi la parce que tey dañu dem ba dañu nasax suñuy loxo dafa nasax suñu doole dafa nasax ci suñu base yi parce que nag nit aussi suy liggéey ak yow di la xool ci benn bërëb bi di la gis ngay tiitaroo diw te diw boobu faalewu la aussi jigéen ñi loolu mettitlu nañ ko te bu ñu sañoon daal loolu mu def ci saafara mooy recevoir ñu ñu jàkkaarlook ñoom waxtaan ak moom amaat doole amaat confiance pour mën a dellu si ci terrain bi Euh, je m'appelle madame euh, Seynabou Ndiéguène euh, présidente du conseil d'administration du petit train de banlieue. En fait, euh, c'est une réunion toute somme normale hein, qui entre dans le cadre euh, de l'animation du parti. Donc, euh, nous, nous, nous, avons réuni les femmes des trois communes d'arrondissement de la commune de Thiès pour échanger donc, par rapport aux échéances à venir, par rapport à la refonte du fichier électoral. Donc, une réunion d'animation. En fait, euh, moi, je ne sais pas ce que vous appelez comme remous. Donc, euh, si c'est... Je sais pas ce que vous appelez comme remous. Qu'est-ce que vous appelez comme remous Ah oui. Un peu la position des femmes par rapport euh, vous appelez remous ce que... En fait... Euh, Nous, la position des femmes, c'est que nous avons appelé comme voie de presse, comme tout le monde, euh, les soi-disant instructions du président de la République, mais par voie de presse. Nous attendons qu'il nous le notifie et à temps voulu, nous donnerons la position des femmes. Nous n'avons pas été consultés et nous, vous devez sans doute le savoir que nous consultons un point assez important dans le parti. les femmes, ce sont les femmes qui massifient, ce sont les femmes qui animent le parti. Nous n'avons pas encore été consultés. Nous attendons à temps voulu qu'on nous le notifie et là, on vous donnera la position des femmes. à l'unité. Parce que nous allons vers des échéances qui ne seront pas faciles à Thiès. Donc il faudra qu'on puisse euh, donner une majorité confortable au président de la République pour qu'il puisse gouverner ce pays. Donc l'appel que je lance, un appel solennel à toutes les composantes de la vie politique euh, nationale à de la vie euh, politique à Thiès plutôt, qu'on puisse s'unir autour de l'essentiel et qu'on puisse taire les égaux surdimensionnés, qu'on puisse savoir qu'il n'y a qu'un seul patron, il n'y a qu'un seul euh, patron au niveau de l'Alliance pour la République, c'est le président dans cette dynamique Ah oui, nous l'avons toujours été. Vous devez sans doute le savoir qu'il n'y a pas eu de divergence majeure au niveau des femmes. Parce que chaque fois que nous appelons à des réunions, nous avons au moins 300 personnes, vous le savez. les événements là. Donc euh, nous appelons euh, autour, de l'essentiel. Donc, voilà. Donc euh, il euh, n'y a pas de problème au niveau des femmes dans la région, dans, la commune de Thiès et également dans le département. Les femmes sont assez unies, donc nous n'avons problème. c'est l'optimisme Oui, nous sommes optimistes. Euh, oui, nous sommes optimistes. Mais si nous y allons en ordre serré, s'il n'y a pas de divergence entre nous, tout est possible à Thiès. la considération nécessaire au plan de la distribution des postes Malheureusement, non. Donc, euh, nous n'avons pas, de poste pour les femmes. Donc, euh, nous lançons un appel euh, au président de la République euh, pour qu'il puisse outiller les femmes de la région de Thiès. Nous avons dominantes femmes. Donc des femmes qui sont dans le parti depuis deux minutes et entre-temps des femmes qui nous ont rejoints qui sont d'égale dignité, certes, que ce sont tous des militantes de l'Alliance pour la République, mais nous avons des femmes. Donc il y a la matière.